Et l'on démarre par les informations. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour Georges, bonjour à tous. Mesdames, et Messieurs, bonjour. Ce drama Yof Tengor, un homme travaillant à l'usine de poissons, a été tué à coups de couteau par un charretier. Il s'agit d'un essence de propos qui a conduit à une bataille rangée. Les responsables du quai de pêche sont venus au secours du bourreau qui a été euh, par la suite arrêté par la gendarmerie. Les faits se sont déroulés hier après-midi. Les euh, délégués de carte, de la langue de Barbarie et d'autres euh, leaders communautaires se disent préoccupés par la euh, paix 24 heures après les violentes manifestations des pêcheurs. Sans lui, ils appellent à la retenue et euh, conseillent le gouvernement de faire des efforts pour régler le problème des licences de pêche, Des plutôt dissoudre la commission d'attribution de licences de pêche, fixer clairement le montant des pénalités, seules conditions pour taire ou arrêter les mouvements d'humeur des pêcheurs de Guetnda Tel est l'avis euh, du secrétaire général du syndicat national et autonome des pêcheurs du Sénégal, Moustapha Dian, euh, que nous écoutons au micro de Ndate Diop. Il faut que la structure qui est en train de gérer ces licences de pêche et qui les gère d'une manière opaque soit décisive de la gestion de ces licences. Que l'autorité reprenne les licences. Parce que ces licences, c'est le fruit d'une coopération entre deux pays. Ces licences, ce n'est pas la propriété de qui que ce soit. Qu'on les mette sur la table, qu'on les gère d'une manière transparente, démocratique, inclusive et participative. Et que qui, va, rassurer tout le monde. Et que les montants des pénalités soient fixés. Soient fixés et annoncés à l'avance. Que l'on sache que tel pirogue qui prend telle espèce paiera une amende de temps au départ. On ne peut pas aller à un jeu dont on ne connaît pas les règles au départ. Moustapha Dien, que vous avez écouté très amplement hier, il était notre invité soir. Ah, Donald Trump euh, a été acquitté par le sénateur, par le Sénat. Donc, le président américain a été euh, donc euh, accusé d'abus de pouvoir, une procédure de décision qui a été lancée euh, par les démocrates. En football, on connaît les affiches des quarts de finale de la Ligue des champions africaine. Le tirage au sort a eu lieu hier mercredi au Caire en Égypte, la double tenante du titre. L'expérience de Tunis va affronter le Zamalek de l'Égypte qui avait sorti Génération Foot. Les deux clubs doivent d'ailleurs se rencontrer ce 14 février en finale de la Super Coupe africaine. Les autres affiches des quarts de finale de la euh, Ligue des champions Africaines. le Wydad de Casablanca du Maroc euh, défie l'étoile du Sahel de la Tunisie sur le euh, banc du WAC. Il y a aussi Moussandaou, ancien international sénégalais entraîneur adjoint du club marocain. Georges.

moo la <laughs> njóobinu fajar day ume George yaa mu gën a xam bàyyi ci jàmm njaay ne am lañ ko <laughs> ba tey rek am na lañ cay toftal ba tey rek njóobinu fajar daal day ume moom na na kii rek na jafandu ci Aliou Ba rek ah. waaw xëy na dina ma dimbili jeex na <laughs> nuyu naa la Alaaji George nuyu auditeurs yi rafetlu yeewandoo beeg ànd beeg rajo Futur Média jukkib xabaaru suba si doore kook jëye jaam ca Yof Tongoor benn waay bu doon liggéeye ci isinu jën ba foofe moom la ñu faat nee nañu ki ko faat paaka la ko jam mu faatu benn borom sareet la ñoom ñaar dañ doon wax wax ja jëm kaw ñu jokkalante kàddu ginnaaw bi ci la ca seytaane rax mu jam ko paaka mu daal di faatu loole kon mooy xibaar bi nga xamante ne jikkoon jotande nañ ko ki def lu ni mel nag gendarme yi teg nañu ko loxo yëf yi mi ngi xew kon démb ci ngoon des na ci dellu si ci yeneen i xibaar ak i témoignage yu ko ci ñoo xamante ne ji fekke nañu ko délégué de quartier yu langue barbari yi fële ca diwaanu Ndar ak it ñi nga xamante ne ji kon ay njiiti euh, commune ba lañu nee ñu daal lu aju ci euh, jàmm dellu si ca moomili réew loo moomili dëkk kon mooy li leen yitteel ginnaaw fitna ja famoon ci jàppante bu doxoon ci mool yi gétt ndax yi ak ñi nga xamante ne ji ñoo di takk der yi sàkku nañu ci ñëpp ñu ànd ak kook daal ci woowule wàll euh, sàkku it ci gouvernement bi mu jëmbat yitte ci yëf yi ngir jafe-jafe yooyu ñu lijjanti ko nappkat yi bañ a amati lenn lu ñuy ñaxtu ba ni tawat ñu daal di koy euh, saafara ci jamono jooc euh, ki nga xamante ne ji moom mooy euh, Moustapha Dieng Moustapha Dieng ci pàttali moom mooy jiite syndicat national et autonome des pêcheurs du Sénégal bëgg-bëgg mooy commission bi nga xam ne teg nañu ko fi sant ko muy séddale licence de pêche ñu tas ko taxawal beneen commission boo xam ne dañu koy jox licence de pêche mu di ko séddale ci anam wu leer wu mucc boo xam ne kenn am loo cay lam-laame la cay mitti teewlu kàddu yu Moustapha Dieng ci micro Alaaji Ndate Diop. ñu wax mool yi lan mooy exactement situation ndax ministre bi li mu toppatoo woon mool yi taxoon mu toppatoo ko. Mhm. mais du ko toppatoo pare benn ay benn groupe yore ko. commission boobu benn commission yore ko. loolu mu toppatoo woon. loolu kon commission bi doxalin bi dafa jaaru dafa des dafa leerul si nit ñi. nit ñi xamuñu lu commission bi di dox. informé wul nit ñi léegi ministre bi loolu mu toppatoo woon ko war jëlaat ci commission bi teg ko si table bi. Mhm. woo ñëpp gérer ko boppam wala mu jox ay service am ñu gérer ko. ba ku war a am licence am licence amande yi ñu wax ko mu leer. ku war fay amande fay amande ku mënul fay amande su ñu jox keneen mu ku mën a fay kooku fay. tant loolu amul jafe-jafe yi day wéy di nekk. ah ragal naa ni tant loolu amul ba mool yi commencé nappi ndax suñuy nappi du ñu am jot. tal ñu kenn faale wuñu kenn liggéey rek la ñu xam li ñu bëgg. liggéey rek la ñu bëgg bëgguñu leneen lii su amee rek c'est parce que dañu am amuñu fu ñu liggéeyee am nañu jafe-jafe mais ñoom mool yi tant que ñoo ngi liggéeyee doo leen gis ci marche doo leen gis si politique doo leen gis si dara seen yoon nekk si liggéey rek lañu ñu gaan jukkib xabaaru suba si ci radio Futur Media waxtane bi ci réew ak njitu réewu amerique di Donald Trump lu aju ci lañ ko don doon ak ité nañ ko Sénat ba def lu ni mel mom njitu réewu amerique fatali ne abus de pouvoir di jay jay dole bokk na ci lañ ko don topé taxone ñu don teggi pexé ngir seet ñu ko daanele pexé yi mujjut euh, sotti waxtane walu tagajaram football xam nañu léegi affiche quart de finale yu ligue des champions africain tirage au sort bi démb àllarba ji la ko amal ña ngi ko doon defee ci Caire Égypte jàpp leen ne euh, Espérance Tunisie dana ci football ak euh, Zamalek bu Égypte mi nga xamné sax mo génné génération foot ci bobu les compétition fàttali na ñom ñaari équipe yi war nañu football euh, fukki fan ak ñent ci wéru février gi di ñëw boobu max nak mi ngi tënku ci finale super coupe africain Alaaji Georges. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye da nga fiy ñëwaat. li la fi indi bu boobaa nag. xanaa li gën a fës ci xëtu yëglekaay yi rek. jeex na ci kanam lay doon jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye.